mbokk julidi mbok talibe yi yi alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi tey nyar ak yeen ñaar nyar. fan ak juroom ñaar naafila tey ji nak fukki rakka la ak ñaar bu ji nag mu jang ca fatiha ben yoon ak inna anzalnahu fukki yoon ñu waat ko ñaar fukel fan ak juroom ñaar fukki rak'a la ak ñaar bu ci nek fatiha ben yoon ak inna anzalnahu fukki yoon bokk jullit yi bokk ci àlluwa yi ñoo ngi leen jox deg ak dajé ba ëllëg ak jàmm allahu akbar